Omar ne defuma soxna si ne moo def loolu te àtte ma kene maa def la ñuy àtte kene defuma ñu bàyyi ko ndax amuñu seede perte na maanaam amuñu seede di maa def ndaw si nee na moom moo def wala Mountakha moo ne maa sàcc micro yi ñu ne Omar yow mu ne sàccuma dara kene defuma naa dem kene moo def lañ ko àtte ci yoon parce que waxtu woo ne maa def seede jaratu ko ndax seede mooy bëgg lu wóor far yow wax nga lu wóor ne maa ko def kon yow yoon dalay àtte boo amulee jëkkër téeméeri yar ñaata yoon la la tëddee nga ne nangami yoon ñu dóor la nangami téeméeri yar su dee am nga jëkkër charia rey la ndax yow yaa maa def ak moom moom mu ne deful ngeew ne nga yaa def yow la ñuy àtte yu xasu mukallafu bi iqraar yi ku ne maa def dañ lay àtte ki ne defuma yoonam nekku ci da nga léegi léegi léegi léegi nga juum ba dugal sa bopp ti doo ko yëg uh-huh. ah, <laughs> léegi-léegi nga juum. ba dugg ci doo ko yëg. mais li li nga wax ne bu doon man daanu naa bu yàgg. ah voilà. lu doy waar oustaz. ah dafa sew. fiq yombul. c'est droit yi yombul. mas naa ko benn nuñ euh, euh, tuddati ñooñu. huissier. waaw huissier de justice yi. ñuy waxtaan yàgg na ëpp na vingt ans yi baa mu jege ko. dee na bu yàgg. ñuy waxtaan ma ne ko. Mm. góor gi mu ne ah ma ne ko maa la gën a xam yoon foofu ma ne ko maa ko gën a xaw foofu waaye nag yaa ma mag foofu man maa jur ma ne ko mais lii nga wax ameewul nii nangam a tax nga di ko def pour ñu jox la nangam kon wàcc nga la nga doon ndax bëgg xaalis wan ko gannaaw dim daaree guddi yoon mu seet si waa wax nga dëgg maa juum delloo naa xaalis ba waaye teg naa mbir mi ci yoon ma ne ko moo gën ci yow. wallaay mais waxtu woo ne def naa nangam maag diw. waaw seede jaratu ko yow kay saxal nga. ku saxal kay ñu àtte na ka nga wax nag bu ne man defuma dara. waaw pare na ca. yàlla dafa am yoon di. ñeenti góor ñeenti ñu maandu ñeenti ñu bokkul fu ñu jógee. Mhm. kenn wasul ko sa morom ñoo ko gisandoo awra góor bi ci biir awra ndaw si ñu gisandoo lépp. ñu yëkkati ko dem ñu càmbar leen ndax gor nga waaw jullit nga waaw maandu nga waaw muy ñeent ñu mel noonu ci la ñuy dumaa góor gi bu dee amul jabar bu amee jabar ci lañ koy reyee ndaw si noonu ah waaye bu fekkee seede amul yow yaa ñëw ne njaaloo naa ak diw ñu yóbbu leen ci yoon diw ne man de njaaloo ma mu ne man mii njaaloo naa ak moom ñu ne ko yuqasu mukallafu bii xaraari ku ku wax yaa saxal kon yow nee nga njaaloo nga mu ne waaw ñu ne kaay ñu waaw ah, mooy dëgg de. <laughs> tabarkal mu mel ni ñoo ngi lay santaat beneen yoon. Mm. Euh, ci daaneel bi. Euh, xam nga nag moom parfois mbir yi ni nga ko waxee ne lu sew sew moo nekk ci biir oustaz mm. léeg nga dégg nag soxna si daf maa forcé bëgguma woon da ngay dégg sax yooyu daf maa forcé daf maa forcé sax ma forcé. dañuy fen rek. <laughs> ñëpp a yem. oustaz oustaz lay tàggatoo ñoo ngi bégg loolu beneen yoon te xam naa ni gàmm gi moom tabarkalla dañ ko waxoon moo gis nga eh, daanaka ci marché bi lañ ko jàppoon foofu lañ la bàyyi rek nga tàggatoo tam am kaddu yooyu ci sànni. maa ne bu jëmee Milan sax baax na ñun waxtu feebar bi buñ ne jeex na rek. ñu attaqué Iran gàmm. waaw la ko war a def yëpp a ngeeg man. Mm. kon xaar dogalu yàlla rek a ci des. lépp a ngeeg man. Mm-hmm. duma xëccoo kenn. kuy xëccoo daa am loo bëgg. man bëgguma dara ci yéen.